dem feeñ na ci ci discours am bi yeew askan bi euh, Moustapha il faut ñu fàttali ci lan la juddoo en réalité yeew askan bi kenn togg ko. kenn kenn togg ko. kenn togg ko ba mu ñor. non non hmm? Khalifa Sall euh, bu ma juumul 2021 la avant locale yi moo jug doon dox ak euh, PDS ak Ousmane Sonko ak PUR. ak PUR quatre pour benn coalition boo xamante ni dañuy dem pour les locale ak hmm. yu ni mel. Uh-huh. Khalifa Sall dox na ci 7 mois. sottiwul mu dem tabaski en France. Mhm. ba mu demee tabaski dellu si Ousmane Sonko jël relais bi Ousmane Sonko moo convaincre le PDS. PDS jamono jooju euh, Thiam moo nekkoon seen euh, seen seen plénipotentiaire moom la Abdoulaye yu ni woon moom moo doon dox diggante bi si la PDS doogay accepté pour ñu teg boobu la coalition xam nga lan la tuddoon. Mhm. Sempi. Sempi. Sempi. Sempi nañu doon dox. ñu dox simpi dox simpi dox simpi ba simpi taxaw. Mm-hmm. ñu am ay jafe-jafe ci wàllu investiture. Habib Sy bokkoon na ci parce que ñoom jàpp nañu waa PDS que Habib Sy traître la. Mm-hmm. mënul nekk le président Abdoulaye Wade occupé ay responsabilités yu rëy. nekkoon son directeur nekkoon son directeur de voilà am ay responsabilités yu réy ba noppi wëlbatiku seetaan la PDS jamono jii ñoom ñu nar ànd ak moom. ci euh, local di ko jox yenn yenn yenn département euh, euh, surtout bu mel ni Linguère ñu bañ hmm. ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni jàppoon nañu ni mënuñu si ànd daal <coughs> si la sempi boobu noonu mujjul am lundi réunion bu tas sempi hmm. mercredi si la yeewu askan bi am looloo indi yeewu askan bi moo tax bu ñuy naan les les autres ak et cetera nañu rappeler quand lan moo tax yeewi askan bi am simpi moo waroon am. Mhm. simpi boobu ba mu amulee si nañ indi li nga xamante ni mooy yeewi askan bi. te te doyen de simpi c'était le PDS le PUR. PDS PUR Pastef ak taxaw Sénégal. voilà taxaw Sénégal. moo commencé dox dox bi affaire yi amoon ay blocage euh, Sonko moom moo ko yeggale. alors ba ñu demee ba li mu tudd euh, yeewi askan bi taxaw aussi. Mhm. ñoom ñu taxaw nekk di di réunion comme comme comme comme yeneen organisation yi. Mhm. mais ñaari façon réunion présentiel wala en ligne. oui. ñoom boob ba tey dañ lay wax waxu présentiel di naan kii ak kii ak kii mënuñu daje. oui Ousmane Sonko mënul génn. sauf que moom Abbas euh, moom euh, Bassirou xam na ni. xalifa uh-huh. sàll jotatul lien yi. lien yan. lien yi ñuy defee réunion. ah mooy mooy lien ah, pour nga bokk ci réunion lien nañ lay envoyé. pour uh-huh. nga participer ci ay réunion. Khalifa Sall jotatu ko. ñoom ñi ko doon dénoncé. donc Khalifa Sall bokkatul donc présence physique bi c'est pas parce que kii mi ngi États-Unis kii mi ngi France kii mi ngi feneen ak feneen ñoom dañuy réunion en ligne. bu ñu euh, réunion en ligne li nga wax Pape Makhtar euh, kilifa wu yeewi askan wi Déthié Fall pour le nommer. Euh, ça doit faire ma ko doon bëgg a vérifier une information. Mhm. mais dama ko dama ko bi ma kii dafa ne ma excuse-moi je suis comme ça en réunion. Mhm. ma ne ma ne ko bon donc je vous mu ne ma non non une réunion en ligne. Mhm. donc certainement c'était c'était non non non loolu la réunion en ligne yooyu euh, yeeyu réunion en ligne nañ doon léegi loolu moo xew voilà bu ñu defee seen réunion en ligne comme seen comme seen euh, comme ni ñuy wax noonu bu ñu amul consensus majorité da koy emporter mhm. et souvent loolu mooy dem bu ñu niwee tey jii ñëpp lii nañu bëgg def bu ñëpp niwee d'accord amul problème. donc mais de Paris où se trouve Habib Sy peut bel et bien participer à mais bien sûr aussi mën na bañ a ànd il n'appartient pas à la conférence des leaders de prononcer ça. mën na bañ a ànd ça na bañ ànd ci ci ci benn décision. Uh-huh. majorité bi ànd ci décision boobu majorité da ngay imposé parce que la majorité l'emporte ñoom noonu la ñuy doxalee. noonu la ñuy doxalee ñoom noonu nañuy doxale doxalee waaye Yewwi Askan Wi alors bu ñu dellu si nag ci li nga xamante ne moo xew effectivement moo tax ma ni ko hmm. Barthélémy Dias bu ko déglu woon euh, <laughs> peut-être du def yenn erreurs yi xam nga Barthélémy Dias erreur bu def hmm. mooy rappeler le contexte xam wax na ko léegi depuis avril hmm. la décision de justice bi wàcc ñuy naan ay injonction wu préfet préfet ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur Macky Sall Barthélémy Dias mu xamal sénégalais yi que ni implicitement que dafay organiser représailles en fonction de li nga xamante ni député Pastef yi def nañ ko mooy recours conseil constitutionnel bi. Ah, parce que évoqué na parce que nee na les mooy ñu dem saisir conseil constitutionnel bu Khalifa Sall bañ a nekk candidat il a dit. li koy firndeel recours conseil constitutionnel ban ban ban ban période la ban kii la génn ban jour la génn le premier wala le 3. le premier bu ma juumul. le premier le premier août. moment yooyu la waaw. le 3. si nañuy def seen annonce que ni dañuy convoqué euh, réunion. Euh, lu mu tudd bureau bureau bureau bureau municipal euh, bu ville de Dakar. Mmh. pour mën a def li nga xamante ni mooy seen ordre du jour en tout cas bokk na ci li nga xamante ni mooy installation nouveau bureau bi. moo tax ma ni ko bu ko Barthélémy Dias déglu woon peut-être du évoquer mbirum conseil constitutionnel boobu parce que en réalité. Mmh. nekkul lu dul représailles boo xamante ni dañ ko organiser en fonction de acte bi nga xamante ni député Pastef teg nañ ko mii acte boo xamante ni ñoom jàpp nañ acte de traîtrise la foofu nag quelque part député Pastef yi. dañu fauté. Hmm. dañu fauté. oui parce que bu nekkee da ngay teg benn acte boo xamante ni amoo benn chance pour mu pour mu pour mu prospérer. Hmm. jarul nga koy def parce que boo ko defee aussi en retour kook am na sañ-sañ. parce que politique la day fayu. day fayu nekkatul ci ay échange de bons procédés hmm. bu ñuy nekkee ci ay yenn mbiri yi yenn yi doo ko def boo niwee dangay ngay def recours boo xamante ni bu sottee euh, Khalifa Sall du bokk ci élection mais moom aussi. dina fàttaliku ni Abass Fall mii ne sama ginnaaw. am naa benn pexe boo xamante ne bu ko defee daf fiy loolu moo xew moo tax ñu ni contexte bi. Mhm. bu ñuy wax ay waxu injonction au préfet bu ñuy wax ay leneen parce que depuis avril. bu ñu bëggoon teg loolu teg nañ ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg. mais mais mais côté boobu aussi est ce que du est ce que Abbas Fall aussi d'une part mënuñu ko reprocher lenn mooy que ni xay na sóoraalul woon li maanaam miinul làngu politique gi ndax biñ ne respecté wul parité. ñëpp xam nañ que bureau bi boo moytuwul bis bu problème amee dinañ ko tas parce que yaa ngi wax que ni problème yi fa la jóge parce que li Bassirou Samb wax d'accord aussi que ni jour boobu la kii am ak yoon problème yi am na fu mu jóge lu yàgg est xam ne a ne boobu ñu ngi woon jox Marie Rose Faye poste bi waaw mais xam nga dafa nekk benn situation boo xamante ni bu bu bu bu quasi improbable la woon euh, kenn xalaatul woon bis dina ñëw Khalifa Sall taxaw di euh, du moins Barthélémy taxaw di di di di di di lancer ay pic euh, euh, lu mu tudd Ousmane Sonko. dem ba koy naan ay waxu gatsa gatsa ak sa boo deewee boo deewee sa yaay sa sa yaay juraat ak yu ni mel mënoon nañ xalaat peut-être quelque part ñu am yenn jafe-jafe mais pas ñu yegg ci niveau boobu donc loolu peut-être mën nañ ko mën nañ leen ko considérer et oui ñoom jàpp nañ ni du la personne de Abbas Fall moom mooy moom mooy moom mooy compter mais Pastef au moins li nga xamante ne mooy premier adjoint boobu erreur mooy que doo toll parti bu toll ni Pastef ngay renoncer à 60 milliards par année ville de Dakar erreur bi Pastef def mooy renoncer bañ a participer ci élection yooyu noonu parce que 60 milliards kenn du ci cracher dessus. une partie de Pastef. mais mais mais est-ce que est-ce la mairie de. Dakar non mais mais quel soit. Euh, mën na gagner wala mënul gagner mais bu participer woon. dem ci élection yooyu noonu peut-être Ousmane Sonko euh, ak jamono jooju nu mu demee woon noonu peut-être seen division boobu. amaana sax Diouf sax mën na gagné. Mhm. mais kii euh, Barthélémy Dias du gagné ak plus de quatre-vingt-dix mille voix. mais li nga wax Issa c'est des improbable mais malheureusement comme li ñuy wax ci politique politique moom lépp nañuy lépp nañuy kii mais je crois quand même que yenn mbir yi moom vraiment mhm. euh, voilà nañu nañu nañu wax en fait mbir yi mu demee quoi réunion yi ay yooyu noonu ñëpp xam nañu